moo fekki taxi ba loolee nag waral ñaari doomu dama daal di ci ñàkk seen naka bakkan yéenekaay bi des naka di warneel jamono ji li nga xamante moom mooy limu ko accident yi ñu nemmeeku rek ci weer yi ñu ne ba léegi ci wàllu ko dem ak dikk Sud Quotidien nañu nag jamono ji bu ñu ko xayma BRT dana tàmbali loolee mel ni euh, ñëpp ci fas yéene noyyi ginnaaw nag jafe-jafe yu bëri yoo xam ne daal ñu ngi koy am ci wàllu ko dem ak dikk BRT moom mi ngi xamle woon daal ni ci weeru février fas yéene nañu ko nag dawal ñeel wàllu ko exploitation commerciale waaye boobu ak léegi fourage daal di xëddeen kenn gisu ko woon yëf yi jamono ji mel ni antu na ba léegi ni ëllëg daañu ko tàmbali buñ ko xayma nag fukk ñeent ci ay gaar li nga xamante ne ni daañu ko eh, tàmbale ci eh, ñaar fukk ak ñett yi ñu ca waajal libération yéenekaay moom desaat ak ñun nag ci mbiru rapport Cour des comptes ak yeneen ya ca eh, fës bokk na ci naka lañu seetlu tey ji ay agent yu doon rek jël benn pàcc seen ak payor daal di koy jox njiital boo ko moomeel la muy coowal loo xam ne daal ab mafia la amoon diggante atum 2015 ak 2017 bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango loolu nag bokk na ci loo xam ne Cour des comptes moom moo ko daal di fësal te ci njeextalu ko weer wa bokk na ci daal agent yu bëri yoo xam ne daal dafa mel ni seen ko loxo dañu leen ko doon wañal ci lu ni mel bu ko defee ñu mën koo joxe jàpp leen daal ne euh, ka nekkoon régisseur ba di Boubacar Diakité moom Cour des comptes lim na ko ca mu mel ni daal moom moo doon tënk li nga xam ne moo jëm ci koppar yooyu ñu doon jël di ko jox njiital bokk moomel ba moom ma fa nekkoon sax ci atum 2014 weeru ko juillet ba moom ñu jur ko baaraamu tuuma di Aminata Kanté moom nag ma ngay taxaw rek di ragg deram buñ ko xayma ci kanamu Cour des comptes nag la mu xamle moom mooy prélèvement irrégulier yi la daal bokkoon na ci ay ay salaire ko agent loolee waxtaan nañu ko waaye daal moom nee na ci kilifteefam loolee mosu fa am donte sax jamono ji la muy naqarlu yor yor yéeni nañu nag jamono ji tam beneen coowal am na fekki rek jamono ji eh, kookee di Ousmane Gueye nekk njiital bokk mel bu eh, Saly jàppale nag ni atum 2012 jàpp 2016 cour des comptes àdduna ci moom ci mbirum essence yoo xam ne ñu ngi ko doon jagleel ay oto jàpp na ci ndaalaw koppar yu bëri ay millions la sax rawatina ñenn ci ay oto loole bokk tey ji ci li nga xamante ni daal moom la ñu koy tuumal ci bi lekk rapport Cour de comptes tam dese nañ rek waxtaanee jamono ji rapport ak vérification critique yi ni kaay nag nañu jamono ji daal bu ñu koy xayma dafa mel ni mbóot yu ñu ca war a sulli bëri nañ tàmbali nañ sax yëf yi ndax te jàpp nañ ni rapport ko af nag ak Cour des comptes daal gouvernement bi jamono ji mu ngi ci sukkandiku bu baax a baax ci wàllu ko yoon. ngir mën a indi ab saafara ci ñi nga xam ne daal ñoom ñu nekkoon di ci def i ñaawteef le quotidien le quotidien moom ci coow lu ni mel yóbbu nañu nag ci coow wala suuf ak dëkkuwaay ya bokk na ci daal cité Atepa ak euh, na mu meloon démb ba nageen tey ji daal taarix boobu yéenekaay bi des na di ko nettali PUD ak lépp loo moom mooy plan initial de désengorgement ba loolee des nañu tam di ko waxtaane ca baruk Géejawaay ak lépp lu ni mel mu mel ni seytaane des na ci daal boobaak léegi mbiru Amadou Ba Direct News yéenekaay moom moo ci xëy nañu moom ñëw na nag dellu si fas yéene janoo ak Macky Sall rawatina rek rek Bassirou Diomaye ginnaaw nag la nga xam ne am na ko ci woteeg présidentielle yi la na mu taxawee woon ako la waral rek mu daal di daanu ci lekk wote yéenekaay bi des na daal di ko waxtaane amadu Ba bu fekkente nag dafay dellu siwaat ci làngu ko politique gi ngir rek des di ca ànd njiitum réew mi ci jamonoom di Macky Sall moom dana nag nekk koo xamante ni daal dana faqastal boppam bu ñu sukkandikoo ci ci ñu sa yéenekaay l'info nañu moom Amadou Ba dellu si na tertu nañ ko nag tertu bu am solo la daal fësal ni jamono ji moom la mu fa yéene daal du leneen lu dul rek fësal jéego waaye tamit def yan anam la fas yéene rek doxalee ci fi ñu jëm. le ak actu moom la mu xëyatee ji bokk na ci Bassirou Diomaye Faye ak PGF maanaam nag pôle judiciaire financier bi nga xam ne taxawal na ko le point nag nañu ginnaaw loolee di créé bu njiitum réew ma ca jamonoom di Macky Sall jàpp leen daal ne fi ne nii moom Bassirou Diomaye fay samp na lu ni mel ngir leeral ay mbir yu bëri ci coow lole le peuple yéenikaay moom nee na nag Moustapha Diakhaté dellusiwaat na sarse na leen bu baax a baax loole bokk na ci daal mbiru mbiruka patrimoine foncier bu jomaay bokk na ci daal hectare yu bëri yoo xam ne moom mu ngi koy joy tudd bokk na ci tamit la muy waxtaane rek keneen loo xam ne kenn waxu ca wala bokk gis nañ ko mu ne fàng loole la mu ca gis rek moom mooy taxawaayu ko Bassirou Diomaye ne gi ne ab bu domaine moom moo tax nag jamono ji kenn am mene su caa wax le soleil suñu jantub réew moom des na ak ci coowal yorinuk euh, semence yi maanaam mbokk euh, jàpp leen ni loole Euh, nañu koy adapté bokk na ci daal yéenekaay bi la muy waxtaanee donte sax jamono ji ñàkkub euh, doole bëri na ci loolee Israël moom jamono ji daal la mu bëgg moom mooy fexe bëgg na yokk euh, koom-koom ba waaye tamit fexe ba dajal rek lépp luy kàttan bu ko defee rek centrale yu chaîne agricole bi le duñu am benn jafe-jafe jafe-jafe Waly Diouf Bodian moom nee na nag sénégalais yi am nañu ko indépendant quotidien dañu xamal daal ne loolee la bëgg saafara ginnaaw naka ba ñu koy jox léngay démb foofee ca PAD jàpp leen daal ne diggante mag kii di Mountaga Sy yéen kaay la mu cay wax daal moom mooy wàllu Diouf Bodiang la mu wax moom mooy dana nag yóbbu port autonome bu Dakar fa mu gën a kawe Sénégalais yi am nañ lu ñuy xaar ci moom te loole na ko jëfe ba tax nag indépendant yéen kaay nañu moom wàllu Diouf Bodiang fixé na kap ba bu ñu sukkandikoo ci la ñu dëxëñ la tribune sport nañu jaraaf bu Dakar tam fixé na kapam ndaxte bëggul bàyyee te ngay jëf yi benn yoon moom daañu ko jongante ba njeexital la. jaraaf daan na nag stade de Mbour ñaari bal ci dara loolee ca stade Caroline Faye la woon ca stade Lat Dior bu Thiès génération foot dafa nërmeelu kii ganteem ak mi am ndam fexe ba fësal daan ni léegi ni déwén daañu ko gisaat ci Ligue 1 bu Sénégal ay chat lii loolu yéen kay fësal tey. mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. sant ngërëm ñel na la. di la souhaiter nga passer une très belle journée.